George Chic Couture, Iba Couture, Yamina Collection, MKB Store, Divine Lingerie, Ruby, l'horlogerie sénégalaise, Chalki Moda VIP, KMF Couture, Bomba Design, fàttali ko li ma gis ci suñu doxalin mooy ñun ñëpp ñoo fàtte suñu borom moo tax ma woote julli mbooloo ngir ñu saxal ko ñun jullit ñaan dong lañu am waaye waruñoo bàyyi ba jaxasoo di soog a wuti suñu borom ndax ñun dañ faa warta jóge sax papa cham ñu doon wirdu mo tax ma yéex a ñëw ni doon naanaale fondé fondé bi na bu defal fajar gi non jamono ji xalaat mo may wettali li am ni man amna ci part de responsabilité ndax yeen ni amul kenn ku ci gone ku ci nekk rek mën ngaa yor sa këru bopp ma dajale leen ngir bo njaboot gi doon benn ndekete bokk ëtt wuute jamono mën naa féewale est-ce que jotul ku nekk am sa ëttu bopp est-ce que xam nga ne bu nu deful dara sunu famille bi dina jaxasoo ba jeex tàkk ndax góor gi yàgg na noo boole dinu nu dajale ngir ñu doon benn fi mu ne dooleem mi ngi raas ñu ñoo war a booloo doon benn bañ a rëcc te lépp mi ngi dépendre sew xel jàmm. man comment ça man. ak a neexoon mu doonoon man. dina def lima war ba dun musa sa xajaloo yalla sun borom si yow la ko jaarale xel jam nga wara fexé ba xol yeb doonat benn cest à lu bax kenn ko yexal sama ko gaawee baxé nak ma jël ndax man lu dul ñu doon ben xam nga ko kay demal nga jël sa jabar nga def lo mën ak lo mënul ba Fatou Bintou Balla nangoo dellusiwaat si kër gi ndax Fatou Bintou ni mel yàlla moo ko bindee moom fu mu nekk day dajale ak di boole loolu nag mayu yàlla la du yomb. cest à yow yaay tudd baax baaxu Fatou Bintou tey damaa xippi samay bët xool. gisee Leila mënu si dara ñëpp la bett Jojo kay c'est compliqué mais musuma xalaat un jour yow di nga mës a fase Jojo ak bëgg bi nga ko bëgg. Khalil Thiam gis nga mbëggeel li muy bëri bëri melo ñaari façon mbëggeel rek am. mbëggeel bi nga xamante ni yegg na si égoïsme ak mbëggeel bi nga xamante ni romb na sacrifice léegi léeg nit dina bëgg nit lool te du lijjanti ndax kooku bëgg na ko kooku boppam lay xool waaye léeg-léeg tamit nit dina bëgg nit bàyyi ko mu dem ak ki mu bëgg faté bopom yow ban nga si soo bëggee dégg-dëgg je dirais l'amour égoïste ndax duma sétane mukk Fat Bintou Ndiaye di tàbbi ci yenen loxo même si koku dina ko procurer plaisir wala bonheur li ma gënal nag mooy mu dellu si ci samay loxo ndax xam naa ne ci samay loxo lay amee bonheur man itam ci ay loxoom lay amee bonheur. sama mbëggeel si joojo dafa romb sacrifice moo waral ma bàyyi ko mu dem sax moo ma gënal ma koy téye njaaloo du gis fekk walla leneen. nit yi dañuy bëggee xol mais yow xel ngay bëggee loolu moo tax fëkk la yombul mais yow kenn rek la jaaxaloon mooy Bambi ah yow yaa tudd turam mais du man kese ah Ababacar Sadikh Thiam ñaari xeetu mbëggeel nga fa tudd léegi muy sacrifice di égoïsme bëgg naa xam ban nga si bëgg aw Cheikh ça va Comment ça peut aller à l'air que ce ringard Ça va pas

yàq sama mariage jaxase ma ak sama papa jaxase ma sama famille ba instant bi sama papa jéppi ma bëgguma sax gis nga yaakaar ne xaricaam dinaa bàyyi noonu faa mais ku ci nekk jël na ay coup doy na sinon dina am kenn ku ci des de <laughs> bu amee kuy des moom lay doon Leila je veux pas te perdre soo ñu ci xoolul nga xool ci ni la Khadijam, là je t'arrête. S'il te plaît, change de sujet. ne ma pas convaincre ba man ma bàyyi faa ci noonu bu ko sax en plus tu en es où avec ton dilemme soit da ngay sëyi wala da ngay dem au village. j'ai besoin de toi. naka jekk ma xam ne nammel indiwu la fi sa soxla moo de fi indi. Ça me fait du bien de te voir sourire. Merci. C'est quoi ton plan Un plan de place un arabe pareil. D'ailleurs, exécute collègue modeste. C'est quoi J'ai besoin d'un espace vide. Là boole mon ak sa waa mon numéro am mu lijjantil yow Khadija Thiam yow ëppal nga de te dëgër fit qu'est-ce qui t'empêche de te marier avec Ousseynou Khadija..? c'est quoi ton problème pourquoi tu veux te compliquer la vie Hein xanaa du yow yaa wax ne ko du moom mooy góor bu lay tere nga dund say rêve am say ambition professionnelle mais marie-toi avec lui nga noppal ko noppal ma Khady Thiam c'est quoi le problème Lila Si je veux réaliser mes objectifs professionnels dois duma dans un mariage moo si je te comprends tu me manques je manques aussi Khady une broche me suis dit que ba magasin et aussitôt ça m'a frappé Il a un guise branche de part et d'autre moi faut la dualité qu'est la vie le rouge sang au milieu comparé au rouge clair qui me rappelle que àdduna lépp loo gis rekk Khady équilibre là. te nag moytul topp say ambition ba mujjee ñàkk li la yomb am ma may la nga ma koy xoolee ndax xam naa ne je compte beaucoup pour toi

ses sees defaral naa ya, la ndékki suur ak choona gi ma am pour defal la ndek bi pour nga reprendre des forces sax yàlla nga bëgg xifuma nga bëgg ma forcer dama ko mënul surna dama la koy forcer moom teen yi nga naan bo lekul sax nga naan bo asson am princesse xamna ni nek bi nga nek si kër gi neexu la ndax chaque goudi ma dégg la ngay joy nonu lay mette ci sama bir xol te buma sañon nak ni nga def sa papa nga def mako ba ñaari kër yi nek ben ci yow yaay eh, la bu baax de nga ne bo sañon ni nga def ni ma def sam papa ma def lako ko waaw bu ko xalaat mën ta ne <laughs> yow nga xamantene dama damaa judd nga jël ma maye ma may ma mama may ba yalla def li gën topoto ma marem di ma topoto sama papa ñu ko attention bi war si man yëpp mu Takau jox taxawuma fu ne nga abandoner ma meni musuma exister tay ma yaay nga lan nga bëgg complicité sama digënté ak yow baa <laughs> yëg nga ne ngay xaar princesse man dama woy ci ndigal rekk sa papa li ma sant defloo ma ko loolu rekk laa def te duma maye bopp ba pare rocc ci làmmiñ ndax soxna may ni mu la war a téewee téewee na la ko te bu ma sañoon nag complicité boobu nga xamante ni dafa jàll sama diggante yow ñu jéem ko rattrapé waat parce que aw ma ku dul yow ngay sama taaw di jigéen maman yaakaaroon ne fi mu ne nii màgg naa at yi ma dundoon leer na mën a dootuma ko dundaat princesse bul wax lool te il n'est jamais trop tard pour bien faire allo Leila ça lan nga may woowe waxal sa soxla gaaw dama yàkkamti dama aw ma benn jot Bah écoute, je t'appelais pour te dire que ta belle-sœur euh, tey def sa sa deuxième et dernière visite. yow Seydou la moo tax nga soof soxor nga bàyyi ba heure bii di ma ko soog a wax. non mais on a la ba sonn jotuma la. laajuma la loolu yëpp yónnee ma adresse bi laa soxla localisation bi te fexeel nag ba bul juum nag. lu xew Leila. oui c'est? Comment on amoon benn cas bu ma bëggoon bu sew nga lijjantil ma ko mën naa ne.

loolu yëpp guddoon ca doo dem këram nga toog ngeen waxtaan yéen ñaar mu déglu la. c'est fait refait et refait Faye instant bi nekkul ci condition déglu ma elle a besoin de temps et ce temps ne joue pas en ma faveur lenn rek laa mën a def mooy wutal ko raison yu war a tax mu toog.

car tu mérites ce bonheur. Ma cousine adorée.

léegi nu muy demee salaam. pulaar du. non du pulaar de pula jéeri la. tamit xanaa yëpp du benn. non du de pula ardo bi ngeen gañe keroog 2-0 ñun pula la gañe lañ ñu de. wax nga dëgg di. naa dugg. Ah, biir xanaa. ah xam lu moo fi fàtte keroog. keroog keroog mooy kañ. barki dem yow tamit xàmmee woom musu mo la gis dama nglay so ba gis. pulul nag yaa ngi naax nag. fi ñewon nak ben yoon duma la fàttee ni nga taro ni mais wuy ma damay rafetal rek Fat Bintu. Bintu ñay du xam nga ko. fa Bintu ñay wa wa kay neena naka naa li ci biir tay la jour visitam bi. noo xamé ne tay la visite. ah duma nglay wax waye gëmoo ma neena na naa fi bala nit ñi di ñew di visiter kër gi pa serigne bi moko jox moy ñaanal katam bi. Nyanyian kan dulu. Ah. Ayo, lu pula yo tek nga der ya baate nga de. Wal ñaan kat mo. jangan kat sa patron fa bintu jaay nga ne day dul. Bu mag buguma ñu dakk la. Liggéey amu dafa jafé. Té nga duggal li bala may wo fat bintu. Do wo fa bintu. Parce que yow li ngay def ni moy commencer nakari. Wala nga dem bay ma kosan Tu me mets en sul. Je te mets. Ay Ah. Wax ak yow jot nak. kon su ma wooyee faa ne ko yow mukkikat nga katu yàmbaa nga dangay volé dangay suus dina la neex. dégg nga bu baax li ma la wax. doo sax rus xoolal et sax téyeel nii dama ne nga téye doo ko si biir. te dinaa ñëwaat am na yeneen yu des. tux nga tuxu tuxu tux ba xamoo janjab joor fu mu la féetee te wuy ma pareegu ma de di des ci oto bi damaa bëgg nga ñëw jël si ko. oh six ada karier, carrière li moo gën a gaaw carrière bee deg-deg, deg-deg. dëgg dëgg man ma war Jape. jàppe ñu may jàpp ku rek ëpp laay pexe man nu ñu ma jàppee sax moo yow man jigéen a ma jàpp waaw sëñ bi na nga def ñu ngi sant impuissance sexuelle paan bokul rek bokkul. lan mooy différence ñaar yoy différence bi bi ci ñëk moy pathologie la té tant que deful ñetti weer mënuñu wax né que fièvre la waaye nak traitement la laaj té ling ma jotta wax ling ma jotta expliquer il faut du temps waaye. buñu sépé li nga xamante mo nek ci sa bir yaram ci liñ ci jot lek di nga wat jot sa katan alhamdullilah ñi ngi sant yalla bu baax docteur duma la nëbb bu dé dëgg rek nga bëgg dégg instant bi soxla na sam bop motax ma bëggona xam ba xam saytu bop si ay fan lay toll wala day mat wër ça dépend ça dépend ça dépend ci quantité bi ci produit bi en plus ban xeetu produit la voilà mais nag dalala sa xel dalalal sa xel dina la jox ay laxatif yoo xamante ne dina la yombalaat ba nga jotal sa kàttan. xam naa ni pour liggéey bi gën a yomb incha allah dinaa fexe ba indil la produit bi nga xamante ni moom laa doon lekk comme ça dina gën a yombal sa liggéey. incha allah incha Votre série revient après la pub. di daal moo bari doole kadi saf sell te wóor teraanga ak ponche la fekk baax seetaan leen seen programme ak boisson ponche yi di teral gan ak di seetal xol yi ak ponche rek teraanga fii la baax Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Orix, powered by Africa. Resto Ataya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 Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. en quoi vous aider Vous pouvez commencer à me dire euh, comment se fait que ma femme n'est toujours pas obtenue d'accord pour ouvrir sa crèche Comment est-ce que Ok. Alors, le service sanitaire nous oppose une veto. Parce que le minimum d'hygiène requis est insuffisant. Les services sanitaires Oui. ce nu est mën hygiène ak faar léegi pour bañ la euh, repasser les liens au peigne fin afin d'obtenir une deuxième visite avec le service sanitaire sinon buñ ko ce sera définitif hein.

est-ce que bàyyi quoi wax naa la xew bi jël nañ bongo man bi ba pare la moo tax nga may précipité kii moo koy bongo kii moo koy bongo bàyyi ma waaye bàyyi ma ma concentré bu ma gën a énervé. grand Tidiane. Omar ça sawaawul demee ñooy jéem a sant bu baax. waaw hmm. yaa nga sant yàgg année laa dawatina moom mooy daw chaque jour day tardé te bu ñëwee man lay sippi wax ji lu ne mu yàq ma. su ñëwee ni ko jaaroon naa fi pour suivre commande yi dégg nga. waaw ah, baax na incha allah mais nag sérieusement grand Tidiane man dama la admirer quoi dama la fan parce que xam la moo tax yow a saa jàppante yi ngeen am nii comprendre nga mën a bàyyi loolu yëpp tege côté jiital job bi. loolu boroom dënn bu baax dëgg borom xol moo ko mën ñi ko man bariwul de. am na amul solo am na amul solo te góor dënnam dafa war a yaatu ba lu ko yàlla teg rek mu mën ko dégg. parce que xam-xam feejati na nga xam nga fii gars yi abu bilaal lañ lay woowee. booy maa ngi dellu sama jën waay. waaw ah, baax na ñoo far waaw jaajëf waay. ii ma de. soxna nga def soxna nga alhamdulilah alhamdulilah sant bi. Fall. Ndiaye Ndiaye Ndiaye. Ndiaye ça va. Ndiaye Ndiaye. alhamdulilah Ndiaye. maanaam ça va. yaa ngi si jàmm yaa ngi si jàmm alhamdulilah. ça va bien alhamdulilah. agent sanitaire bi de moom moo war a visiter kër gi. Ah, mais bee fu nii yegg si leen ak jàmm loolu kay amul benn problème. yegg si la ak jàmm. ça marche merci beaucoup amul benn problème. ku la teel si li nga taayee si. ku la bàyyi tamit Fall. ñoo ko bokk yow tamit ñoo ko bokk waaw. Fula. Fula mm. lu xew. waaw ah, bëgg la rek.

sama bopp nii c yamba dal baxul quoi mo lay wala wala Amar magam bege na la kan man ziar at magal nak dila tatagal nak bu wir sax gëna la yel lu tay doon ma nga may ñew di ma magal ni di ma ziar lu marché wu lepp marché na xana waajal tak jóg rek pour ñaarel bi <laughs> yow yaagi ngi wax sa yaram mo tang les waxul waw yalla bu mu wax <laughs> mais pardon sa papa ñaar la ma yese ay grand lo moy non non lo question la des fois da ngay dérailler quoi ah, maa ngi jégalu maa ngi jégalu ah, Tidiane jaar na fi sax mo sang bu lay ñu ngi waxtaan quoi mi ngi neex nga may ay waxu Tidiane défaillant bobu tët mais gannaaw ay jàmm te daf maa yóbbante rek de yóbbante àq la moo tax ma ne naa ko wax. Abou Bilal moom lu mu soxla ndax jaar na fi daal ba wax xaw ma comment ni ngeen war a sécuriser xaw ma verrouiller affaire yooyu quoi may waxaat la. koo xanaa xamoo balance la dañ ko fay yónni uniquement pour ñu espionner place bi mais man la fiy fekk mais dafa am benn affaire bu mu la bëgg a laaj boo mu ci mën a dimbalee quoi. comme que ñëpp waaw ñëpp manqué nañ koy. ne palman nga quoi da ngay yeb dang may fay ma kala da sa dépense ni ka bi di toll non la fay gi di toll sama liggéeyu ka tiaxane mo nga de esclavage bi fi la yam ci mbar mais ci mbar mi nga nek ya ma gëna xam man dama bëggoon xam kay kañ kañ la mëna am temps pour mëna ñëw sét ci père njuga parce que dégg naa paa bi day tëju te dégg naa kër ga jamono ji comme sabar bu tas waaye saa kay gàlle bi waxuma la pele jaa rek lépp jaxasoo dalee ko na ci sama yaay na bu gëy tomate Khadija oh instant yi ñoom ñëpp ku si nekk Père Ndiouga dalaa tegal punition. Ah, papa bi tamit lan lay def ay punition mel ni ku yor ay xale tamit. lan waaye li ñu def moo garaaw na waaye gàll bi instant yi comme sabar bu tas. man na kaaw Khady moom ma si gën a marqué nag. ndeysaan le pauvre ma petite sœur <laughs> instant yi moom ultimatum lañ ko tegal. mariage mbaa village bi moom da koy rek. Père Ndiougo gaañ Père Ndiougo bu mu nelaw waaye sama père mais bu defee loolu day juum non mais xale xale la mais nañ ko bàyyi mu dund loof sem xam nga enjoy life am tuuti sax nag xadi boo xoolee xamul dara jàng la mës a xam. ñu bëgg ko jël def ko ay leer ma ne mariage forcé la. mariage forcé. génnal ci loolu. xam ni kii mu gën a bëgg si life am lañ ko may. seenu rek lay toog ba guddi mu dem tëj. keneen ku mu doon kii nag xamal ne mu ngi la doon saxal mépp. da nga bëri wax yow.

baax sa yaram def maa ngi ci jàmm baax alhamdulilah. ani tonton Seydou. dafa génn sànq dafa soxla woon. ah parce que dafa ma waxoon pour ma jaafi tey. Ah que doo ko waxoon fu mu toll. waaw ah, baax na dinaa ko waxoon xool ba xam. sanse jeexno xadi ba yeeng ni doo lay jënd mais xel ay sañse sa rouge lan la. contane bo ma xam ni nii maa bëgg sama xolé ngi mel ni Rudo Mayga dama lay laxasu. standard nijaay jaam. ana nijaay Mor. mu ngi ci biir. eh Sadiq Sadiq Thiam eh. Sadiq eh Sadiq yow laay wax de. yaa Cheikh. eh dalal eh, man la. wooy eh dama lay rey léegi. ëpp naa def marem. Sadiq Thiam. ciseau la yor de. gis nga. ciseau la yor. dama koy dagg kit kit man ak yow ñu am si. ëpp naa def. dama bëgg nga wax ma lan nga jox mu jox defal eh déggoo li ma la xanaa. defal ndànk defal ndànk dama bëgg nga jox ma sunguf bi laa la wax. defal ndànk. Sadikh lan la lan la lan la. rek. ana sunguf bi laa wax. defal ndànk eh ana nii defal ndànk. eh Sadikh. Eh, institut du ma la bàyyi noonu sax day yomb. Eh, yow eh Sadikh ubbil. yow ma def la loo xamante ni ku ñëwati di def lu bon doo ko nangoo laal. ëpp naa def. lu xew. def de wooy. bu doon a maram naa def lu doy waar sa kanam. def de obile c'est-à-dire eh yow lan nga doon def ci biir lan nga doon def ci biir ba yor ay ciseaux c'est-à-dire yaa ngi may bëgg a yëpp nag de caam. ciseaux la yor. yow moom nijaay moo noppi noppi nijaay moo ñàkk nga fayda ñàkkal ma fayda. defal ndànk nag. kën fu beew ma ci génne de. yow dimbali ma ah. hey la ma ci génne. da ko doon dagg waaye dama dama rëcc. waroon na koo dagg ba xam. ëpp naa def wax na waroon na koo dagg ba xam ko yëg. ah alhamdulilah rabbil aalamiin lay bàyyi kasa yàqul xaalis. waaye kii am na saas. bàyyi kasa yàqul xaalis. yàqul xaalis am moo. waaye yow yaa yàqu. amna na sens nekk ko ni rek waroon nako dag ba xam ku koy yek ndax yow jaro dara way te nga bañu wax lolu jaro dara waaye alhamdulilahi rabbil alamin yow eh. ana sa papa ki xaritam ma ki won tàgg won day dem anniversaire anniversaire fan ah xalé yi xam nga ni léegi mom dematuñ fen sen tànk gatt na lolu Omar Jaam a ngi mom léegi moom ba barada ba bol ba duus ba mbar ma waaw khadija am nak mom comme dañ koy maye lu yàggul ma ko ni genn rek fexal xolam li da laa wax li rek la rek len nak bal mu fe dess rek leen ma ñu jamm bu dañ koy saray ah li da kooku sarax mu daw <laughs> demee mo <laughs> en tout cas am téré parateur bi naka ay si sauvé cere ju roté dina ci bax dé merci ah papa juga dox ci xalé yi nak ñi may traverser dé ah papa juga aw cheikh ana sa sadiq papa sadiq wona ko sank dafa jaar kër maré marem am bëkté bi da ba dem khalil no def ça va papa bu doole lekk nih ne neex na de. ngeen doon rek. Habib doole lekk. pourtant c'est bon hein. yow ada ne xarit Thiam ban anniversaire la dem. man di dund nii. Bakir xuuse nga de xuuse nga de. mujj xuuse nga maa ngi dulu pàcc da waaye léegi da ngaa bëgg ma noppi man léegi bu ma noppee bu ko defee papa njuga yor ñam di wax di comparer doomu kii ak samay doon. taana bu lu fàtte ñu duñu ñun duñu ñoom ok ñun ñoo yar ñi. xam nga yow li nga war a def mooy hmm? sa wax ju bari ji nga jënd fu sa doom yi di dugg ak fu ñuy génn gënu. kon yow juróo leen xanaa dañoo ñëw cëppee lu juróo leen de. xale yu baax yëpp instant bi ñoo ngi seen biir kër wallahi barki señ bi xalé yu bax yépp ngi tok seen watu yaay ñu gën ñi nak ñu ngi tek ma ne nga nuppi yow duul yow nuppil yow amo lo wax nga melni walax njaan yow bo baxon di nga xol gone kacaba yi nga biral leen may wax ñu naan dañuy baby sura way dootu ñu ko defati de <laughs> awa seex loy re ah da nga fogg ni ya momé ba ba tax lu la neex nga def na bu foguma ko nak de am ah loolu am. waaye réere nga mbir pour yow rek a ah, neexagut nag. loolu baax na. awa ah, seex dafa neexagut. Naabu moytul kii enregistré la yow li nga war a lijjanti bari na de Naabu yow dèjà rek xoolal nit ñi kenn toogul ci bool bi loolu lijjanti loolu. du ma ko lijjanti xam nga lu may lijjanti. Hmm. sa baay mii di ko jaar. nga xamante punition une semaine rek la ci xam bu ñëwee nii rek mu mayee multimatam une semaine ci loolu nga war a wax yow mii xarit yi xawul tàng sunu ma taalal kilim bi. seddaay bi. chaque jour ma wax la booy ñëw fii chaleur bi ngay indaale ça oh, ma met hors de moi. wan naa la yow laa si yàkkamte pour nga fay ko. Hmm. mais benn affaire laa bëgg a laaj quoi. parlons peu et doucement. sa avenir lan nga ci planifier

sama xel dal na pour ma dugg ci say. xarit li nga teg sama loxo oyof na mais coojuwul coob baa ngi nii ah ñu laal ko waxtaanee ko parce que man tey dama xaw a xiif quoi man maa dugg wànje. lii laa man suur naa de. aywa nuroo ma daraay ko mën togg man est-ce que du ma commandé sax def ko secours. yow kan nga gis muy dox ci mbedd di yor ay cin man may cordon bleu. ñu ñam xol non man ma lay ñamal ñam ñamalat la. compal non. daa ma suur non non baye bu gedd indi gon na ko bu rëy waxal loo sentir. Mm. c'est pas boo lekkee ba suur war ngaa gërëm war ngaa gërëm ñu nekk ci waañ bi rek mu yuuxu waañ bee tàng naa ci yu waaw ma ne ma comp. nga may joxe si. wallahi am waaye nag di protocole torop muy segeen détails yi ngeen di bàyyi moo leen indi problème bu ngeen nekkee seen borom kër mais teel nii waaye non da ngay jóg jox ma nga sukk man naan ba pare nga koy ndax fu dem du ngeen fa yàgg les bonnes dul xam ah te eh kañ nga nekk gu bëri bañ bëri ak mën dul at yu rose mi mi melni kankuram bala di bi bee dina la tëddee lu ni na la may baye ba ciob ba pare do ko nan ko mais xadi xam nga amna lu mu la ko ma nest pas mhm. j'ai beaucoup d'argent l'homme qui n'a jamais pété sa valeur boy na say nopp

sooreewu da ngaa baax rek kenn du ma mbàjjoo buñ naan rabu àll jàngooñ taxul xar yi sax réewoon maa tàccu boo demee sa dee juboo naa ak jooju ba jaar këram te jooju saay-saay la du koy téye guddi gi yëpp aw Cheikh xamul kañ ngay am jom koo bàyyi nga toog di yaakaar naan sa dee nga ñëw yaakaar jiguma te baaxul sax ci àdduna man daal ndeke duma sax nit ku fi bàyyi ma toog di yaakaar di xaar koo xamante ne maaleykum salaam. Adix noo def. ça va soxna si. ci sànq doon la laajte. si woo naa ko batale naa ko ak laay pen ay bagar bagar bagar bagar bagar ba laal plafond yi lu waay waxoon na ci delluwaat bandi ci réew mi kaay leen xool Pablo bi mi ngi nii Escobar baa ngi nii yàlla benn bu ma yàq daa rien compris nga ma teg nag xale moo may dëkk mais maga may daal